jëf kontaan trop di xaw a sax rëccu li tax euh, yéexuma ko def ma ma yéex ko def euh, xam nga man doomu Tëngéej laa fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa jànge samay waajur fi lañ ne fi laay amee samay teraanga euh, tey bu ñu nekkee ci politique du diggu ci jongante bu mel nii pour dem assemblée nationale nekk député dafa jaadu ma dem ci askanu Tëngéej waxtaan ak ñoom du waa Tëngéej ñoo war ñëw ci man man mais man maa war a sol sama dal dem seeti waa Tëngéej parce que élection député euh, li mu wuuteeg yeneen yi mooy fa nga nar a taxaw ci biir assemblée di leen défendral seen intérêt boo xamul seen intérêt boo demee da nga fay nekk làkk tubaab ju neex wala wax wax ju neex mais doo amal ñi ñi njariñ donc li tax moo taxoon tey ma ñëw seet si leen am na nag lu ma njort ne mooy seen problème fii ñu dugg ci marché bi wax naa leen ko. ku nekk xam nga ne problème mu secteur informel daf fi am gouvernement Sénégal lu nekk ñu ngi ciy jéem a dugal seen loxo mais toppatoo ñu secteur informel jéemu ñu xool seen problème réglé wu ñu réglé ko. moo tax loolu man yàgg naa ko bind bind naa ko ci téere wax naa ko fii itam ci marché bi ñu bëri ñu fiy nekk secteur informel dañuy doon ay doomu daara en fait doomu daara yi ñoom ñooy jàng ba pare du ñu am ci lu ñu jàpp wala gouvernement du leen toppatoo ñu dugg ci commerce bi. donc ñaar yooyu boo ko boolee dafa mel ni yaa ngi ci xoolu Sénégal te xoolu Sénégal boobu moo nekk ci marché centralu Tëngéej te marché centralu Tëngéej boo ñëwee tey koñ boo jël ci Tëngéej am nañ fi ay représentant waaye dëkk boo jël ci département bi am nañ fi ay représentant donc fii mooy Tëngéej ma am chance nag ñëw tey ay nit ñu baax recevoir ma fi le président Arona Ba ak ñi mu àndal ñëpp du mën a citer ñëpp parce que bu ma ko tuddee rek tuddi naa ñëpp parce que fii ku nekk dafa am loo yor ñi ñoo yor gerte caaf ñi ñoo yor fëgg jaay yi ñi ñoo yor ñi di jaay jën mais ñoom ñëpp moom moo leen euh, nekk boole nekk seen kilifa ñu ñëw nag seet ko mu ànd ak ñi mu àndal ñu waxtaan ñun ñu wax ko li ñu xalaat ci doomu daara ak secteur informel ñoom ñu waxtaan ni ñu xalaatee ne seen liggéey noonu la war a doxee jël nañ nag suñu big ak fooy bind déglu nañ leen li ma leen di wax tey mooy duñ ñu gën a gore bu soobee yàlla buñ ñu jàppalee ba ñun doomu Tëngéej ñu dem assemblée national dinañ xam ne ñoom am nañ fa ay représentants dinañ xam ne am nañ ay députés parce que nag ñu wax ko quand même te duñu tudd kenn Tëngéej dafa toog lu yàgg amatul ko koy défendre même ñi nga xam ne dañu nekk ci pouvoir bi ànd ak président Macky Sall dëkk Tëngéej doo leen dégg ñu tijji seen gémmiñ défendre Tëngéej jamais te ñëpp xam nañ ne président Macky Sall yàq na Sénégal waaye président Macky Sall ci biir yàq bi mu yàq Sénégal dafa gën a yàq Tëngéej dafa mel ni bi mu toogee ba léegi waa Tëngéej dafa am lu ñu ko def ba muy dem deuxième tour élection présidentielle 2012 fii la taxaw Tëngéej ne yéen xam nañ ne benn problème ngeen am mooy assainissement Tëngéej bu ñu réglé woon tey problème assainissement koñ boo fi dugg day baax marché bii day baax ba léegi toppatoo ko xalaatu ko lijjantiw ko ñun nag dañu doon doomu Tëngéej yoo xam ne dañu bëgg amal njariñ Tëngéej waaye nag yéen yéenay Tëngéej waa marché bi ñooy Tëngéej ñu di jaay caaf ñooy Tëngéej ñi di jaay beñe ñi di jaay mburu yéen yéenay Tëngéej donc dañu ñëwoon déglu leen wax leen na ngeen jox ñu baat pour ñu mën leen taxawal ki nga xam ne moo taxaw dend ak man mu ngi tudd madame Ndiaye faama Dieng xale bu ndaw la mu ngi dëkk HLM mooy suñu titre de liste départementale pour Tëngéej boo xoolee yeneen liste yi ay mag lañ fa teg mag am na njariñ waaye dafa am fooy tollu ci xeexal sa askan da ngay jël ndaw yi nga jiital leen am na ci keneen koo xam ne nekku fi mooy Cheikh Tidiane Guèye Guèye xale la ñoom ñaar ñooñu la ñu jiital boo leen boolee ak man Abdourahmane Diouf ma nekk ci liste national bi mooy bu ñu votelee votel aar Sénégal dinañ taxaw ci problème mu Tëngéej pour loolu jëm kanam am na nag leneen lu nekk ci kanam élection législative yi bu jeexee am na élection présidentielle ñun dañu nekk doomu Tëngéej créer partie boo xam ne moo tudd awale te xol bi Tëngéej la nekk te loolu tam ci histoire politique gu Sénégal bariwu fi donc message bi ñuy laaj lancé waa Tëngéej mooy seen doom jog na seen doom bu jógee dina jog ci cadre yi dina jog ci ouvrier dina jog ci secteur informel dina jog ci doomu daara dina jog ci góor dina jog ci jigéen donc ma leen di sant encore président Arona Ba ak ñëpp ñu mu àndal jeunes yi jël nañ kàddu jigéen ñi jël nañ kàddu mag ñi jël nañ kàddu ñoom ngeer ñi maa ngi koy sant di ko gërëm jël nañ fi kàddu wax wax yu rafet léegi nag la bale est dans notre camp nañ ñu jàppale ñun waa coalition Aar Sénégal ndax ñu gën leen mën a jàppale jërëjëf wasalaam